ko bañee su ngeen dund wala bu ngeen ni dee force yëf yi day jub parce que loolu lañu wate asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare te di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne gis nga Waly Diouf maanaam li mu yor économie Sénégal fa lay jóge muy port bi lobby yu bëree bëree bëree bëri seen yaakaar gi ci port bi lañ ko def tappalekat yu bëree bëree bëree bëri seen lépp ci poor bi lañ ko def moo tax guddi patriote jàppale Waly Diouf warteef la farata la taxaw ci ginnaawam fital ko jub jubal jubbante bi mu ngi dox bu baax ci biir port bi comme ni ko yoor yoor binde waaye pour mu gën a dox faw ñun ñi nga xamante si ñoo ñoo xeex ba combat bi egsi ñu war a protéger projet bi sport bi dafa war a nekk nekk ci li ñuy taxaw taxaw ci ginnaaw Waly juuf pour que liggéey yi nga xam ne mu ngi koy amal foofu ci poor bi ñu gën koo fital mu gën cee dox gën cee dem parce que port bi dafa dëng ba mel ni garabu yoo te Waly juuf da ko war jubbanti ba mu jub xocc ña lànk ne poor bi du jub xocc ñu dal seen kaw ak ci anam bu mën a doon parce que boo gisee ñiy jóg di wax ñëpp ay tappalekat lan mooy ñi nga xamante nii dañoo nekk ci port bi ba pare di dunde port bi te dundaluñ port bi Waly Diouf ne day def ay audit ngeen ne audit du fi amee loolu waxoo leen dëgg jub-jubal gi par force lay doon su leen di neex ak bu leen di naqari te li tax ñu jël poor bi dénk ko Waly Diouf le président Ousmane Sonko ak président Bassirou ay fay xam nañ li xew ni nu jube nekk ko ci biir impôt et domaine kenn mësu leen a jàpp ne ñoo fi lekk fifteen looloo dal Waly Diouf Bodiang bi moo waral waa port bi ña fa nekk ku ci jubal woon na nga jub te xam ne li fi war a jubbantiku lépp Waly Diouf da koy jubbanti su ngeen ko bëggee ak su ngeen ko bañee su ngeen di dund wala bu ngeen di dee par la force yëf yi day jub parce que loolu lañ wate